merci c'est une question très intéressante par rapport ak euh, ak li nga xam ne moo nekkoon génn le président El Hadj Malick Gakou ci AFP et je pense que génn sax dañ ko dañ ko dàq le président Moustapha Niass moo ko moo ko génnee parti bi pourquoi daf ko accompagner 16 ans à travers un congrès encore boo xam ne moom lañ def le numéro 2 du parti xam nga congrès su la defee numéro 1 jël congrès def le numéro 2 donc c' est le parti en tant que tel c' le leader de parti moo ko neex rek nga nekk numéro 2 mais c' est congrès c' est des instances nationales internationales du parti bi nekkoon AFP ñoo ko def numéro 2 mu accompagné ko 16 ans mais lan moo indi seen clash xam nga le parti politique bu ñu lay jox récépissé je pense que ñëpp xam nañ ko dañ lay jox récépissé parce que da nga présenté bëgg a nekk un parti politique mais conformément ak condition yi nga war a xam ne tëral nañu ko ci règlement intérieur bi ak le ministère de l'intérieur ak li mu teg yépp mais dafa am derrière la constitution bi nga xam ne moo nekk la charte mère constitution boobu dafa am une disposition très claire mooy l'article a conclure au donc la problème est que soo nekkee AFP en 2012 le président Malick Gakou bokkuñu soutenir le président Macky Sall nekkoon ministre ci biir du sport nekkoon ministre du commerce donc bi mu demee ba ci biir politiquement parlant def ne mën nañ accompagner. mais il n'était pas question ñu jël parti bi ñu seeyal ko parce que l'objectif d'un parti politique c'est de concourir au suffrage donc sur ce il y avait un entre moom ak le président Moustapha Niasse déggoowuñ ci kàddu googu bi mu ñu ne ñoom dañ bëgg a seeyal mu ne ko ah ñun dañu war a nekk candidat ci élection 2017 bi waroon ñëw li ñu foogoon mooy nekk 2017 dañu war a nekk candidat déggoowuñu ci si le président Moustapha Niasse génnoon defoon les leen di bi mu ko dàqee c'est un homme moi l'habitude de dire toujours que la politique c'est une aspiration individuelle avant d'être collective parti ku si muntu bokk sentiroo les principes dematoo ak la ligne du parti normalement bu ñu la dàqul da war a démissionner donc il a créé le grand parti en bi mu créé le grand parti en aujourd'hui l'histoire lui a yàggul dara defoon na benn déclaration ne dafa bëgg a parti bàyyi bi jeunes yi bu nekkee ak derrière mhm. mais c'était ce élection yii di ñëw mais par pourquoi mu génn parce que à ce niveau aussi encore la le temps donne raison à Malick Gakou parce que un parti politique du seeyal boppam ci benn coalition mais day garder son autonomie et son euh, indépendance et participe à l'idée maintenant de coalition maintenant sa beneen question bi les retrouvailles important moo tax ma ne la tout leader politique boo xam ne tey nekk nga candidat forcément da ngay demee coalition jamais un parti bu tudd APR kese wala réew mi kese wala Pastef kese wala grand parti kese ne dafay def son leader munoo am benn élection boo xam ne am nga ci doole. donc du moment que c'est le jeu des alliances du moment que c'est le jeu des coalitions c'est sûr et certain que le président euh, euh, El Hadj Malick qui a part Euh, euh, partager tant d'années d'expérience avec ñi nekk ASPT desoon ci régime bi a bokk mais si nit ñi mais ñi ngi ciy liggéey le leader Alors, du parti xam na ni tey su amee l'appui ah, de l'AFP des alliances des forces du progrès ñu mu bokkaloon. Mhm. parti su ko amee dañ koy jël donc ñu ni ciy liggéey ñu ngi ciy xalaat. sachant que aussi dañuy respecter moom li nga xam ne c'est son agenda politique ni mu koy defee xam na ko. mais ñu ngi ciy liggéey daal.